salaamaaleykum mu ngi jaar ñëpp tey nag moom doon ñëw pour def benn video deux minutes rek bu gaaw pour jéem a expliquer tuuti ci santé bi wala ñuy wax ci comité de santé bi dañuy wax ci district sanitaire bi nga xamante membre yi ko jiite ay membre de ay nit lañ yoo xam xamante daanaka dañ nekk ci biir hôpital bi di fi liggéey jiite district sanitaire bi maanaam muy président muy trésorier général muy ñëpp ànd ak docteur bi nga xam ne dañ ko indi pour mu faj. mais moom mu ñëw pour politique yow sax du sori ak yow ci wax parce que que Mohamed laa wax ni boo réagiré ma jëli la fi yow du ma xaar pour ñu yow ci ñi nga xam ne dañuy voté pour ñu dañ la fi indi woon pour nga liggéey mais nous la fi pour ay magu yi indiwuñu la fi pour ay injustice la fi pour ñàkk fayda ak ñàkk personnalité ak ñàkk xam sa man bu ni li ma wax dafa la metti dama nga porter ma plainte yéen ñàkk ngeen ngor amu ngor amu dignité personnalité ay espèce nit yoo xam ne te ku ci nekk tonni mbalit nga nekkee woon ci Kébémer tey ñoom ñooy nekk suñ ay trésorier général ñoom ñooy gérer suñ ay santé di ko defee nu mu leen neex site sanitaire boo xam ne te le préfet nag moom damay wax ak yow directement bi avertissement la yow yaaw jiite dëkk bi gis nga district sanitaire bi da koy résoudre par force ci nii wala ci naa defoo ko ñun dinañ xool ban côté ak nan la ñuy def pour lii nii gis nga pour ñuy xaar maire bi xaar suba ginnaaw suba loolu maire bi la mais pour district sanitaire bi noo duñ xaar mu jàll ay docteur yoo xamante yow dañ la indi pour liggéey waxuma dara ngay def ay chaise politique PDS PDS biir hôpital waxuma dara nga ni danga fa defar sa benn restaurant boo xam ne te restaurant ay fen la da ngeen ko def pour def ko chaise politique ndax lan yow waa PDS ñoom ñoo moom hôpitalu Kébémer yow dañ la fi indi pour politique wala dañ pour maguy wala dañ indi pour sàcc wala dañ leen fi indi pour ndax lan moo tax ñun lan moo tax respecté woo leen ñu sama problème mooy lan moo tax Kébémer képp ku jug pour saboter rek fii ngay ñëw nga def te dara du la ci fekk ñun nag tey dinaa def yi fi mag mooy dinañ jug dinañ dem dinañ wax ak le préfet dinañ ko wax li fi jàll ak li fi nekkoon dinaa ko wax ba expliquer ko ci ambulance bi ya fi xew ci bin yi wax bu benn oto daw dinaa ko wax ba wax ko ambulance bi yim daan yàpp di ko indi ci dëkk bi dinaa ko leeral lu leer loo xam ne te bu nee ma preuve ma tegal ko ko ci taabal bi Kébémer nag bu leen defee ne yéen ko moom ndax ngeen seen bopp yow nag yow docteur xawma docteur nga xawma loo mën a doon mais yow du ma la boole Kébémer du ma boole préfet du ma la kenn barki Seydina Mohamed man kot su ma la waxee ni la boo tegul say mbir ci yoon ma génne la hôpital bi boo nga gëm doo leen sax ay nit yéen doo leen sax ay nit seen àdduna santé bi sante bi san